xam nañu léegi affiche u demi-finale édition ren bu Champions League Paris Saint-Germain Manchester City ak Real Madrid Chelsea lay doon ginnaaw Paris Saint-Germain bu Idrissa Gana Gueye ak Abdou Diallo naka noonu it Chelsea bu Edouard Mendy qualifié woon niki mardi bi merengue yeeg citizens yi ñoo qualifié ci mercredi bi. Reds yu Liverpool yi ginnaaw ba ñu leen daanee ci match aller bi ñetti bal ci benn dañoo témboo ak Real Madrid kenn dugalu sa morom dara ca Anfield. moo ne day naataango yu Sadio Mané yi ñoo ëpp it ay occasion ci match bi waaye dugaluñu benn yoon ci li nga xam ne moom mooy camp wu Real Madrid yi donte ne défense su Real Madrid bi ba tey matagul ndax Ramos ak Varane bokkuñu ci match boobee égyptien bi di Mohamed Salah am na ay yoon yoon occasion ngir mën a dugal waaye mujjuta antu rawati nag bi nga xam ne Sadio Mané paas na ko ko bi match bi amee ñaari simili Liverpool mi nga xam ne éliminé nañ ko ci Champions League sori it loolu place qualificative européenne yi ca championnat bu Angleterre ku moyul édition bu déwén bi du ko fekkee mu wuteeg loolu Manchester City mi nga xam ne jamono ji moo raw gàddu ga ca Premier League moom mi nga xam ne validé na tikkeem ngir demi-finale Champions League bu ren bi ginnaaw bañ leen jiitalee ci fukk ak juróomeeli simili bu match bi Manchester City dafa dikkaat ci match bi ci ñaareelu période bi daal di mujj gagné match bi définitivement ginnaaw ay bit yu algérien bi di Riyad Mahrez ak kii di Phil Foden fii ak ñaar ci ay bés daañu amoon li nga xam ne moom mooy demi-finale Ligue européenne des champions yi club bu capitale française bi di Paris Saint-Germain dina dalal Citizens yu Manchester City bi ci match aller bi ca jamono jooju merengue yi di dalal équipe euh, bu Chelsea bu Thomas Tuchel bi 27 jàpp 28 avril la semaine ba ca topp équipe yooyu daañu dajewaat ngir match retour bi ak it ak place ci finale Ligue européenne des champions niki ren